la si daan ta def ci alab gaawaan mën a su koo lim duusi géej day baawaan boobaa ñeneen fukki atam ci duniyaa leeram nga jolli na bawar lëndëm ya ca moomaat la sañ ci kër fa ñaaxeen tabax fa kër jëndati kër fa jànqeen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu dellu seeti sëriñ bi di fàttali rek ndax xam naa ñi ñi ma koy waxal sax fàttewuñ ko ndax ñoom bu ñu joxe addi ji tey rek bu ñu delloo seen kër tàmbali ko waajalaat kon mel na ni addi ji dikk na ba agsi ci ni nga xamee ne taalibe yu murid yi duñu fàtte benn yoon waxtu màggalug Tuuba duñu fàtte benn yoon waxtu màggalug Daaru Salaam duñu fàtte benn yoon waxtu màggalug Daaru Musti duñu fàtte benn fàtte benn yoon itam liggéey bu Xelkom ndax maag sama bokki taalibe yi buñ sañoon guddi ak bëccëg dañ koy nekk ci liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba nag du jeex amul wàcc li fi nekkoon démb rek boo fi ne fi ma toog di jot maam Cheikh Anta dafay nekkoon ci Daaru Salaam gii jël léppam jébbal ko Serigne Touba jaay ko ak dundam jaay ko ab juddoom jaay ko bokk giñ bokk jënde ko ak taalibe ak ngërëmul Serigne tubaa te ngërëmul Serigne Touba mooy ngërëmul yàlla loole mu nàmpatal ci njabootam gépp cheikh Mouhamadul Maamun nañ ca bopp ba cheikh Mouhamadul wéyal loolee ba ñëpp xam nañ ne li gënoon na ñor Serigne Touba di jumaay Touba di ko Serigne Fallou liggéeyee fekk ko fa ko sëñ Modou Moustapha bàyyi ak yéen yi sëñ Modou Moustapha juree ja ci àggale jumaa ji mu song ko moo njabootu borom Touba ji ba jumaa ji àggee. sëriñ Fallu dafa wax suñ muru maamun ne ko tappi jumaay Tuubaa ji fi nit ñi taxaw di julli yaa koy lal yow lañ ko sase kon nag cër boobee ca Daaru Salaam am moo waral nun war noo noppalu te it cër boobee tam Cheikh Sidil Muxtaar sunu sang bu baax ba yàlla ko sunu borom dolli ay leer yebal na Cheikh Bass fii ñëw fekk fii suñu asgare ak nun ñi ñëpp mu wax ne Cheikh si Muxtaar nee na lépp luñ sase woon Daaru Salaam ci jumaay Tubaa ji delloo nañ leen ko waaw kenn dootu fa def dara ca la ngeen daan def loolu kon moo waral bi nga xamee ne sëriñ Modou Rokhaya dem na ba toll fa waajuram tolloon waajuram jël ko na ko maam Cheikh Anta jële woon jébbaloon ko Serigne Touba ba mu def ci moom la mu def ci moom moo Modou Mamoun jëlaat ko moom jébbal ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo fi toogal sëriñ Touba mu yar ko jàngal ko yéegal ko def ci moom pas-pas boo xam ne bi tërbiye tërbiye ak Serigne Touba rek moo mën moo mën loolu waaye Serigne Modou Rokhaya ko ko jege wala nga laal ci moom dara wala mu tarbiya la ne la wóor ne Serigne Touba la tarbiya ndax Cheikh Mouhamadou Moustapha Serigne Touba ko tarbiya moo Serigne Fallou ak njabootu Serigne kon nag la la mu tarbi na tarbiya woon rek noonu la tarbiya Serigne Modou Rokhaya ba tax bi mu ñëwee fii Serigne Modou Moustapha delloosi ko ci Serigne Modou Mamoun mu dal ne man kat li ma war njëkk a mooy fu may liggéeyee liggéeyukaay boo xam ne. saa bu ñu wootee jumaa ji naa am lu ma yóbbu def ko jox ginnaaw bi nga xamee ne wax nañ ni jumaa ji àgg na nag yokk wee ci des mun mun na ci yokk kenn mënu ko jox bi ñu yeesalaat tappi jumaa ji ñu sas ko ko mu ñëw euh, yeesalaat tappi téeméeri tappi yoo xam ne yi euh, yëpp ñëpp gisal nañ ko seen bopp kon nag bis bii nu jublu si muy kenn sasunu Sëñ Tuubaa sasunu Sëñ Tuubaa Seex Muntaxaa sasunu waaye nun noo sas suñu bopp xam ne seq nanoog Sëñ Tuubaa loo xam ne nun koo fay mukk ci àdduna ba ba nu dem àjjana loolu moo waral ñu ne nanu sas suñu wut bis boo xam ne dañ ciy sasu sasuñu kenn nag lu waaye am andi ñu dajale ko dem ki fi nekkal sëriñ Tuubaa ñu dem teg ko ci loxoom yeesalaat sunu njëbbal sunu jëbbalu ci sëriñ yeesalaat sunu pas la maam Cheikh defoon daal sëriñ Modou def ko ñu yeesalaat ko loolu mooy li ñuy woote euh, samedi euh, le vingt cinq janvier ñu bëgg ñëpp daje fii ci Darou te kenn ku ne loo daan def nga yokk ko bu baax baax ndax kenn ku ci ne ba sotle su bopp gis nga ci sa bopp ak yokkute te itam liggéeyal sëriñ Tuuba day day day yokk day yokk day yokk day yokk ab taalibe addiya nag boo ko seetloo day mel ni dañ ko tàmbale ci nun waaye bu ñu fàttali ko xareb taboog ba nga xam ne mujjoon nañu di ko wax sax xareb yowmal usra ndax jafewaayu xare ba yonent bi dafa woote saxaaba yi kenn ku ne mu ne ko doo andi kenn ku ne wax li mu mu ne woo Seydina Omar loo andi mu ko man de yoroon xaaj naa ci lii li ci des bàyyee naa ko njaboot ga mu woo Seydina Ousmane mu ne ko man de woon lépp andi naa ko door door a dàqaat jur jur jur gu bëree bëri ne ko na ko euh, na ko xarikat yi war na ci nañ ci war wut ay ngànnaay yu bari lépp def naa ko addiye ci xare bii kon nag Seydina Ousmane ba tax suñu borom boole ko ci ne ko kon yow na la wóor ne maa ngi lay béggal ne ci sa kër ko àjjanaa ngi lay nekk loolu liggéeyal addi rek moo ko mën kon nag euh, nuy ñaan euh, ñi nga xam ne ñoo nekk biir réew mi ak ñi nekk bitim réew bis bi le vingt cinq janvier la ma di ko woote ci tur ci ndigalul sëriñ Muntaxa sunu yaakaar àdduna ak di ko woote ci turu sëriñ Mor Fati xalifa maam Cheikh Anta ak rakkam di ko woote ci turu sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Jiili ak rakkam sëriñ Abo ak ci turu njabootuk borom gaawoon gépp ak ci turu njabootuk sëriñ Moodu Maamun gépp baa eh, bu kenn bëgg dara ndax la sëñ Modou Rokhaya daan wax rek bu noppee ci liggéeyu sëñ bi rek day sunu aaj yëpp faju waaye liggéeyal sëñ bi moom eh, sëñ bi moom da dul da dul nekk mu nekk ni sëñ bi moom boo jëfee ci moom fi saas rek mu daal la koy won yàlla nañu ca boole kon nag sëriñ Tuubaa mun nu ko fay mun noo fay maam Cheikh Anta bis bi nañu jaral lu ne waaw nañu jaral lu ne jërë ngeen jëf woote baa ngi noonu mu di woote addiyey Daaru Salaam waaye di màggal yeeslu gi ñuy fàttalikoo Serigne Modou Rokhaya jàmbaar ji nga xam ne moo ko sosoon mu feeñoon jamono ci atum 1918 fii ci Daaru Salaam génn àdduna 1996 liggéeyal fi yàlla liggéey bu toll noonu sos fi it euh, njariñ loo xam ne duutu jeex ba àddunay tukki ñoo ko woote nag euh, samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier Eh, fii ci Daaru Salaam ñuy ñaan képp koo xam ne teew nga fi rek yal yàlla faj sa ajo bis boobu nag ñu xamal ne sëriñ bi nee na dañ koy yendoo jàng alxuraan yendoo ko jàng ay xaside waaye yendu cee jaayante waat ak sëriñ Tuubaa nag feddali waat suñu laxasaay sëriñ Tuubaa yëbbal ko seen jëwriñ ji nga xamante ne bii moo leen nekkal fii ci Daaru Salaam di seen bunt kenn ku ci nekk teg sa addee ci loxoom bu ñu xëyee ñu maase jébbalaat ko Serigne Touba daaw nag yóbbu woon nañ cent soixante-douze millions Serigne bi nee na dafa bëgg lu ko ëpp fuuf ren kon képp koo xamante ne bii rek yaa ngi dégg woote bi nañu boole waat li ci poos yi jox ko ndéem bëgg nañ soxla su ñëw ñu faj ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.